auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin al amin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp balax ñëpp tey baal ñëpp àq eh, boo gisee jataay bi nag ñu ngi ci ànd ak suñu sëriñ suñu kilifa ñu ko sëriñ Cheikh Ndiaye umul ñu bokk ko dégg ñu ko suñu micro rek bu ko defee mu def ci ay kàddu yu soññee jëma ci eh, solos bis bi ah, ak kàddu soñño yoo xam ne da koy ñaax mbooloo mi ak fépp bu jànkatu xasida ne kon ña euh, ànd ak Serigne Cheikh Ndiaye bu ko defee ñu jox suñu micro mu defal ñu waxtaan jëmale ko solo si bi ak soñño bu jëm ci mbooloo mi Serigne Cheikh Ndiaye bismillah asalaamaaleykum euh, nun soppee Sëñ Tuubaa laay wax nun soppee Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa mi nga xam ne liggéeyal na yonent bi sallallahu alayhi lu ko kenn liggéeyal barki démb rek dama ciy waxtaan sëñ Talla mii mooy nodd ci jumaa jama jiite fee ci doole sëñ Dëru Asan ak sëñ Matar Marema mu jur sëñ Ndindi mu jur sama yaay mu jur ma te ñoom ñëpp kenn ku ne sëñ Moussa Ka wax ci moom euh, sëñ ma euh, sëñ Dëru moom kenn du ko waxtaane ci sëñ bi xam nañ fi mu ci toll fii doy gu ko sëñ bi doy ba mu di ko doxalee digganteem ak boromam waaye sëñ Matar foofee di mbaaxool te tey ay doomi soxna rek ba sëñ bi jógee sënnoo si ñaar kon ku ma woo ci sëñ bi war na maa wuyu ci doole ji bëri ba noppi fit bi amut kon mënumaa ñàkk a ànd ak yéen ci seen mbégte ndax bi saay-saay si ne bu fi mbooloo dajeeti loolee man dama caa def fi daanu kat sëñ taalaa ngi nii mooy nodd seere aw wet wet ne leen ku fi jaar ma def noonu ñu jógee ca màggalu sëñ Daaru ñëw ñu ne bu mu fi amee sëñ Murtala moom sëñ Blaat fi ma ko yenee daa wax ne lu fi ñëw de ñu ne déet sëñ Tuubaa la ñuy seet waaye màggal gi na suñ ku ci deret ku dox suñu diggante ak moom deret tuuru ci laa xaritoog moom ba li ma daa tàng andiwaatu waaye moo ko jox ma ne ku bëgg sëñ Tuubaa ma la loolu gën a loolee nag la ma leen gën a jàppe mooy ba mettee ñu ne nag du fi amee maa ngi ñoom a ko ànd ci sama pénc mais ñu yenn faa yëkkati egg nañ ci ne ma ah saay saay saa ngi wërelu de ma ne leen day ab saay saay buy baw ca Ndakaaru munta teel li ma bëgg a def Sëñ Tuubaa ma def kon nag mbégte ma am ci liggéeyal Sëñ Tuubaa gii nga xam ne ànd naa ko yéen yàlla rek laa koy ceereel dama màndi nag ba mënumaa xam da li may wax lépp waxi daanu ko waaye nag na ko segg te seetaat ko dama leen di wax nag ne bëgg gii nu bëgg sëñ Tuubaa sëñ nu koo bañ sëñ Tuubaa daa bëgg yonent bi saa ba jeex ci takk waaye ba mu ko defee nag sun borom danoo fop si maamul wala yaakaar naa am ko sëñ bi wax ba way wa jeex maanaam dañ noo fayee sëñ Tuubaa nan sant nag yàlla nu ñuy nangu ñu fayee nu sëñ Tuubaa ba bëgg gën bëgg sëñ Tuubaa jox ko lépp yàlla defal na ci loo xam ne adduna ak alaaxira xol yu leer yi mu ci defal daanu amit doole it liggéey suñ ci suñ wërsëg ak suñ xel suñ xam-xam suñ lépp ni mu jeexe woon ci jox lépp yonent bi sallallahu yàlla rekk sax loolee yàlla na ko yàlla defal ci suñ Tuubaa foofu laa yew